li ci yéen yi li ci yéen kaay yi El Hadji Ousseynou ak jàmm ci xibaar yéene yi nga xam ne rek moom la xëyandoo Bignona meloon na ni Dakar tàngoon jër yéene gi di la tir di ñu xamal ne ñi di farandooy Ousmane Sonko ñu ñu xamal ne xamal ne dañu ko yëngal ba mu tàng jër daanaka kay safara lañu ko sotti woon témoin yéene kaay di ñu xamale dakaar donte nag ak dal lañ fa nemeek waaye Bignona moom yëngu woon a démb que bu dee Dakar kër Ousmane Sonko ñii nga xam ne rek ñoom ñoo di takk der ñoo ko waroon ndomba te jamono jooje Les Échos yéene kaay xamale lépp loo xam ne rek jëm na ci mbirum Ousmane Sonko jamono ji nag ak fast track lañ ciy doxale Moustapha Niass mu ngay gaawal yi fi maanaam daal ñori mbalaanum Ousmane Sonko mbalaanum kiir laay ma ci Assemblée nationale yi mbir ya ma ngay dox Le Quotidien yéene kaay ji attekat bi lay jàkkaarloo ndax mbiram ña ngi cay doxal ak fast track daal mbir ya na mu a gaawee ña ko cey doxal laas yéene

exclusif yéen kaay duñu xam ne mbirum Ousmane Sonko kay moo bëri ay lëj-lëj yéen kaay gi duñu xam ne am ne jamono ji kay ay taskati xibaar lañu maanaam daal dañoo mel ni ku far ak Ousmane Sonko ñettee des mel ni tamit ku ko contre l'observateur ne mbirum Ousmane Sonko la ci gën a doy waar moo di xale bu jigéen bi nga xam ne rek moom la ñuy wax maam ba muy ñaareelu xale bu jigéen bi nga xam ne rek moo ko doon fudd ndigam yéen kaay gi duñu xamal ne moom kay la mu xam ne moo di maanaam daal demoon na bàyyi ko mook aji borom sama ba nee na ñu nekk fa woon yéen kaay gi duñu xam ne waaye ko foofa Les Échos yéenekaay duñu xamal ne ñi nga xam ne rek ñoom ñoo ànd ak Ousmane Sonko yoo xam ne rek jamono ji teg leen loxo ba defeere nañu leen loo xam ne di takk der yi ña ngi leen koy teg Tribune yéenekaay ne ko moom faalewul loo xam ne nag dama ko ci réccu gënal sama bakkan source ay yéenekaay xëy moom mel ni ko sampablaay wax nag lépp loo xam ne rek daanaka jëm na ci mbirum Ousmane Sonko ginnaaw dafa feebar lan moo tax demul assemblée nationale ñu compal ko mu faj yéenekaay gi dañu xamal ne am na ay député yoo xam ne bu ñu feebaree lañ ko naan ko Sonko moomee kay daa wóoluta assemblée nationale ndax ndox ma ñu fay jëfandikoo sax Sonko du ko laal du ko jege du ko laal ca jamono jojee Le Soleil yéenekaay duñu xamal ne maanaam daal armée bii nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ca Casamance di jàmbaar yi l'observateur yéenekaay di ñu xamal xibaar gu doy waar di ñu xamal ne Aziz Aly Ndiaye benn rakkam kay lañu jàpp mu doon jaayi drogue jamono ji nag tëj nañ ko ràpp ca kaso ba libération yéenekaay di ñu xamal ne bébé Murtada xale bi xam ne mu doy waar tamit mu xew ci Mbàkke yéenekaay gi di ñu xamal ne ñetti góor benn kenn ka ab la ñaar ña dañoo am jabar ñoo jàpp benn xale bu jigéen boo xam ne ay atam ci fukk ak juróom benn dong la toll tey nag xale boobay xel ma neexul maanaam daal wérul yéenekaay gi di ñu xamal ne ñoom kay dañu ko violé pour doon ko ko paasante def ko yëfu saay-saay mu nekk nag lu doy waar cey loolu de mbàkke la xewee ay yàlla mi nu sàkk li mbaa jàmm la El Hadji Ousseynou Ndiaye